بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا salaatu wassalaamu ala man ursila rahmatan lilaalamin sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wattamkin bokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaar waaye di jiital ci nuyoo bi alxalifatul am cheikh mouhamadinil muntaqa ñaan suñ borom subhanahu wa mu yàggal ko fi di nuyu famille soxna Marème Ball xam naa sorituñ ñi ngi ci yoon wi di ñëw lañ wax ci njiital sox cheikh Astou Faye di nuyu famille sëriñ Muxtaar Demba te ki ko jiite di bàyyi sëriñ mu diir di leen jox seen wàccuwaay bi ñu am ci bis bi gis nañ seen teewaay bu baax a baax ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm ñëw ngeen ci seen yëf ñëw ngeen seen barab ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waaye di nuyu itam sëriñ Kàbb Sylla bi nga xam ne mooy euh, équipe sorta bi ak ñim ànd doon liggéey bi di nuyu sunu bàyyi sëñ deqale eh, moom itam bi nekkee ci liggéey ba léegi nekk sunu waajur nekk sunu wet di nu xelal di ànd ñun liggéey bi di nuyu itam sëriñ Thierno Sill mi nga xam ne moom moo yore moom lañu war jox lenge ak mbooleem askanu Tayba wépp bàyyiwuñu kenn ndax gis nañu liggéey bi ñu doon def lu mat fukki at ñu nekk ci nekk ci ànd seeg ki ko jiitu muy sëriñ kàbb ak mboolem cellules yi nga xam ne ñu ngi ci gox yi ci Tayba bay Daaru Musti ba Tàmba Mbuur Kawlax bàyyiwuñu kenn ñoom ñëpp gis nañ seen taxawaay liggéey boobu nga xam ne moom lañu def nag ci diiru fukkaat yooyu dina am ku ñëw ci réalisation yi waaye ñun ni ñu ñëw rek ci kàdd yoo xam ne kàddu yu soññee la ak jëflante yu rafet yi nga xam ne nekk na ci diggante mbokk yi diirib lu mat fukki at yoo xam ne ni am na ab soppiku bu wóor a wóor boo xam ne nii wuute nag ba ko jiitu woon donte ba ko jiitu woon nag suñuy bàyyi suñuy kilifa sosoon lu mel noonu waaye ba ñëw tekk suñuy loxo ñu gis ne am na maanaam tatawur gu baax bu ci am te loolu yàlla dogaloon mu sosoo woon ca muy silatu rahim bi ca Dakar ca kër Baay Ibrahima Sill mi nga xam ne tey jii euh, doomam sëriñ Thierno Sill moo war moom lañ famille yëpp doog waxtaan d'accord jox ko mu jiite kon nag loolu day wuy rali sunu borom subhaanahu wa taala wax ci alquran wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arham inna allaha kaana aleykum raqiba kam ak mbokk suñ borom subhanahu wa taala moo nu ko njëkk a sàmmloo te nee na ragal yàlla dong nag ñoo koy mën a sàmm kon nag nañ xa jàppee ne toppatoo mbokk ak jaamu yàlla la rek te jaamu yàlla gudde nit di def ku ne ma nga cay yaakaar yool boo dee julli boo dee woor boo dee asaka yooyu yëpp ab yool nga ciy yaakaar waaye dox mbokk yi itam boo bëggee mu yomb ci yow jàppee ko ne ak jaamu yàlla rek lépp loo ca def suñ borom subhanahu wa taala dana la fay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne alqaatiu la yadxulu aljanna yaani qaatiu rahim képp koo xam ne yaa ngi dog sag bokk su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku du dugg aljanna kon nag àjjana ji mën naa yomb lool bu fekkee dégg nañ wax yonente bi te wa yantiqu la hawa in huwa illaa wax yu waxa du waxe bakkan te moo wax loolu kon nit ki topp toog mbakkam rek nam ware mën na cee yaakaar àjjana suñu borom subhanahu wa taala kon nag ñi ngi soññ ñaat soññ ñëpp di soññ bokk yépp lii bañ ko commencé ba léegi am na am na ak wuute goo xam ne nii am na ci la ko jiitu woon ndax la ko jiitu woon boo masaan dem ci dëkk Tayba wala yàlla dogal nga doon fa jàngee ba jóge fa mën ngaa toogaat lu yàgg yàgg yàgg doo fa demaat waaye bi ñu demee ba sos lii loola sabab na ay déplacement yu bari yoo xam ne nit ñi ni ñu koy def te ginnaaw biñ xàmmanti ko seen i biir xam na ay mbokk lañ mbokk googu dañ ko war a dox tax na ba léegi àll ba ña fa nekk wala euh, ñan ñenn féete foofa ba léegi wéetatuñ ndax lépp loo xew ñëpp danañ ko yëg ñëpp danañ ca taxaw nañ ca war a taxawee koo nam man itam balaa yàgg dañ ko gis ci lu mel nii wala lu ko nuru kon ñu ngi gën a soññaan ñëpp malgré famille bi xam nañ ne famille bu yaatu la waaye boo dee xool malgré ñi ñëw ñëpp tubaarkàlla ñi ngi leen di sant waaye boo ko dee xool matu sax 10 pour cent ci biir famille bi kon nag ba léegi ñi ngi soññaat nit ñi ñu ñëw li ñu leen di wooye du lenn lu dul ñëw ànd euh, toppatoo sunu mbokk ndax kenn ku nekk li nga moom kenn waru ko waru la ko gën a fonk te nit ki lim moom moo di boppam ak ay mbokkam li nga bokk ak ñoom nag da ngeen di fas yéene saa yu nekk ngeen di ko taxawal fas mu jëm kanam te lii dana tax mu jëm kanam kenn ku nekk la nga tanee sa morom bu dee ci xalaat la nga dimbali ko ca bu dee ci man-man la nga dimbali ko ca bu dee ci kattan la nga dimbali ko ca ñun ñëpp ñu bokk ànd bokk ay objectif bokk lu ñu bëgg te lu ñu bëgg lu nekk lu lu baax ñu ñëpp ñu ànd doxal loola kon ñu ngi soññaan ñëpp ñu ñëw ci mbooloo mi képp ku ko dégg te ñëw goo woon nga ñëw bokk ci biir mbooloo mi ndax li ñu ci def lépp defuñu ko lu ludut ak jaamu yàlla subhaanahu wa taala toppatoo sunu mbokk comme ni ko réew mi ñëpp di defee kon nag loolu kenn waruñu cee raw ndax dañuy bàkkee nitu tayba nitu diine di ko bàkkee nitu alxuraan di ko bàkkee nit ku mbokk ku bëgg bokkam kon nag loola war naa feeñ ci say jëf war naa feeñ ci say wax war naa feeñ ci say doxalin kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp kàddu yi ma na fee gën a gudd waaye xam nañ ne waxtu yu mi ngi dem te itam ñi fa jël kàddu bari na wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mbooloom yëpp di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa. maam Serigne Jaxale Sill di ko ñaanal suñ boroom yàggal ko fi lool te wér di sàkku ci moom tamit ñaan waaye di nuyu ak a ziar mbooleem mbokk yi nga xam ne teew nañ fi ak fuñ mën a jóge waaye di ci beral nuyoo ñi nga xam ne ñoom lañ darajaale bés bi di njabootu soxna Marème Ball Sill te gis ne kilifa yaa ngi nii jóge Daaru Muxti ak fenn fu nekk ñëw toog waaye njabootu Serigne Makhtar Demba Syll nga xam ne Baye sëriñ Syll Mudir ñu ko jiite mi ngi ni toog ànd ak bokk yépp ñuy sant bu baax a baax ak gërëm ak masawu coono mboolem mbokk yi nga xam ne déplacé wu nañ fu mu mën a doon daal di ñëw teewe bis bu am solo bii bis bi nag wax dëgg yàlla. Euh, am na solo waaye ñoom it xam nañ ko lu jege fukki atam yi nii ñu koy taxawee boobu ba léegi tamit jamono bu nekk rek yokkute lañ ci nemmeeku ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di ñaan mu jëm kanam man nag dañ ma sas liggéey boo xam ne xam naa ne yombut waaye jëm naa ci sama kem kàttan ci tënk ndax jataay bi tamit dafa am lu laaj laaju maanaam wax ju gudd bu ko defee bu ñu demee ci beneen étape boo xam ne dañoo war a bind danañ gën a yaatal li nga xam ne moom lañ tënk ci ay kàddu jëbgal ko mbooloo mi bu ko defee ñu xam ne danañ def rapport général d'activité boo xam ne euh, lu ñu yaxal lay doon bu ko defee mu bokk ci mémoire association bi nga xam ne ëllëg di si ku ko dem gëstu ca lépp fépp foo xam ne jaaroon nañ fa ci ay yëngu yoo xam ne dafay tax mbir mi jëm kanam dinga nga fa fekk lu doy xam association bi nag comme ni ngeen ko xamee dafa nekk loo xam ne du lu ñu sos ñun gone yi waaye lu ñu sof la ci lu fi nekkoon mag ñi sosoon ko comme ni ma baaxoo di ko baamtoo saa su may yëkkati ay kàddu jëmale ci ko jëmale jëmale ko ci association bi yàlla dogalee it ñu am yéene yi ko ak jamono dañ ko gaaral kilifa yi ñu nangul ñu ko rafet du ko lool ñaanal ñu ci waaye am lu ñu sartanteloon ak ñun muy condition yoo xam ne dañ ñu ko tegaloon bu fekkoon ne parewuñ woon pour sàmmonte ak condition yooyu la muy tekki mooy kon ñoom du ñu jox ndigal ci ñu samp association condition yooyu nag daanaka benn rekk la ak li taxoon ñun ñu jóg waaye buñ ko sampee ba mu dëgër nit jafandu ci dañuy yombalal leneen loo xam ne yootu nañ ko ngir yokk ko ci ñu ne ñu daal lu ngeen mën a def ba mbir mi jëm kanam def leen ko lu ngeen ci mën a yokk ba méngoo ak jamono yokk leen ko ci nu ngeen ko mën a gën a taarale def leen ko waaye ñaar yi na ngeen fexe ba sàmmonte ak moom ñu ne ñu woon ziyaara bi nga xam ne moom la ñuy amal ci xalif général des mourides da nga xam ne mooy cosaanu association bi na ngeen koy wéyal ñu nangu ko ñu ne ñu tamit ziyaara bi nga xam ne moom lañuy amal ci kanam ki nga xam ne moo jiite askan yu Tayba wépp ak ku mën a doon moom it da koy wéyal ñu nangu ko yàlla dogal ja anam ba nga xam ne moom lañ ko daan defe ñoom ba mu ñor leen lool ñu bëgg ñu nit ñu wéyal ko suñ borom suuturaal ñu bañ am luñ ca yokk ndax doxin wa ak taxawaay ba soppeeku na bi yàlla dogalee ñu tàmbali liggéey boobu loolu nag xam naa seenu ñaan moom bokk na ci li ko mën a li ko yombal ba ba mu mën a nekk kon loolu mooy fondamentaux association bi kon réalisation bi njëkk ci association bi mooy respecter ñaari condition yooyu nga xam ne moom la ñu dëalante woon ak mag ñi ngir mën a yokk dara wala dolli lu mën a doon rek ci li nga xam ne ñoom moom lañ taxawaloon loolu def nañ ko suñu boroom may ñu ci ndam waaye tamit euh, teewut jéemantu nañ ne mbooloo mu toll nii kat ku koy dajale war nga fexe pour mu yaatu waaye pour nit ñi sawar waaye pour tamit nit ñi gis ci lu leen amal solo ba mu jaral leen ñoom it ñu duñ yam ci di wuy si rek waaye di sax tàllal seen loxo ñeneen ñi nga xam ne jàpp nañ ne war nañ cee mën a bokk maanaam di yaatal ñu ne nañ jéem a xalaat kon xalaat yooyu moo jur ndaje mii tey kon ndaje mii tamit ci réalisation yi association bi la bokk ñu ne nañ taxawal ab assemblée général boo xam ne dañ koy dañ koy amal ci euh, ñu tànn dëkk bi di Touba tànn it événement bi nga xam ne mooy màggalu Touba ñu jàpp ne li ëpp ci mbooloo mi bokk ci askan wi ci la ñuy dajee ci benn bërëb boo xam ne moom kese lañ jàpp ne daal ci lañ mën a dajee ci lim bu toll nii kon loolu moo justifié choix wu Touba bi léegi nag ci lañ daan nekkoon nañu sañ ci ndaje mii kon ndaje mii nga xam ne fukkeelu at bi tey la ren jii la bu ma ci génnee at mi nga xam ne defuñu ko te mooy bi tombé Covid bi te loolu gaar na événement yu baree bari yu dul yii te niroog moom kon juróom-ñeenti yoon def nañ ko ci tey jii. fii ci tubaa jàpp naa ne ndaje mi nag suñ doon def bilan bi amaana du fi xaj ndax bëri na wax dëgg yàlla loo xam ne ay ay ay effet la yu positif yoo xam ne ci ndaje mii la la soqi ko waaye yemuñu ci loolu kese mais def nañ ay réalisation sociale ndax bi yàlla dogalee tamit ñu sañ ci association bi dañoo gis ne Taïba yi kat bari lool Tayba yi kat bari na lool waaye Tayba bu ne am nga sa bésu bopp te comme bu weesoo ziar bi ñuy ziaree xalif général bi nga xam ne moo mag ci askan wi amul beneen bisu Tayba boo xam ne ñëpp a ko bokk waaye bésu Tayba bu mu ci mën a doon it ñëpp ca lañ ñu ne kon nañuy jéem a amal amal ab taxawaay ci mboolem bés boo xam ne woote nañ ko ci péncu Tayba mu mën a doon ci lañ euh, fas yéene dogu. tàmbali liggéey boobu bis bu ba bu ñu wootee association bi sàkk ab délégation waaye tamit sàkk ab ziar addiya dem teew ca bis ba ah, jàpp ca liggéey ba bokk ca ñaan yàlla lañ fay def lépp ñu ànd kook boroom bés ba loolu tamit jàpp naa ne lenn la ci réalisation yu am solo yi nga xam ne association kuréel gi jot na koo def te dana baaxit ñu leeral ko nit ñi fii bokk na tamit ci loolu wàllum solidarité yoo xam ne moom lu jaadu la waaye du jar di ko di ci di dugg ci détails yi waaye am na tànk social boo xam ne ci cadre solidarité ak dimbalante boo xam ne ñi ngi koy doxee euh, di ci def liggéey bu mucc ayib waaye tamit ku ne xam ne ne li may wax nii lépp maanaam lu maslaa la boo xam ne doonul lu matériel loo xam ne la luy lu lu moral la gën a doon Euh, luy tax nit ki bëgg luy tax nit ki fier luy tax nit ki tamit euh, maanaam euh, gis boppam ci mbir moo xamante ni bii ca la bokk ñu ñu wan ko ne ko ci nga ubbil ko ci buntu waaye tamit taxawu ko bu ko soxlaa ba mu xam ne kat ay bokkam teewal nañ ko waaye ci réalisation matérielle yi tamit am na ci yoo xam ne jot nañ koo def muy jéego yu am solo ndax bi ñu jógee rek li ñu njëkk a def ci réalisation mooy miire armée li Taïba bépp te ku ne xam na ne li tax loolu am solo mooy suñu maam yi nga xam ne ñoo ñëw fii sanc fi dëkk bi njëkk sañc sanc mooy Taïba bépp kon suñu maam yi njëkk Taïba bépp lañ armée li Taïba bépp lañ tëdd kon bu fekkee ne loolu def miire nañ armée yooyu képp koo xam ne ci askanu ba nga bokk rek da ngay mën a wax ne yow lañ ko defal ndax am na sa maam yoo xam ne bu ñu toppee càllala gi da ngay dem ba directement ca ñoom te foofu lañ tëdd ñu miiré loolu bokk na ci réalisation matérielle yi nga xam ne kuréel gi amal na ko waaye am na beneen projet parce que mi ngi en cours sax mën naa wax ne daanaka mi ngi ci cappaandaw ji waaye comme demaguñ ba àgg ca fin ba ba léegi projet en cours rek laa koy tuddee. muy résidence Serigne ba bi nga xam ne sumb nañ lu tollu ay at ñu ngi ci di ci liggéey liggéey bu am solo ndax biñ demee ba xam ne ñun ñëpp ñu d'accord ci am à l'unanimité ci ne Touba mooy bërëb bi nga xam ne bu fekkoon ne dañuy am siège national Touba la war a doon ndax mooy bërëb bi nga xam ne moo ëpp lu muy regorger maanaam ay membre askanu Taïba ci réew mi ci jamono jamonoy màggalu Tuuba ak yeneen yi xew-xew te daje bi ñu fi daje it ampleur bi muy am yeneen ndaje yi ñuy def faren xaj na amu ko ñu ne kon fii war nañ fee mën am makkaan moo xam ne suñu mbos bopp lay doon saa bu ñu soxlaa gisante ci suñu biir dem defe ko fa woo suñuy mbokk ñu fekk ñu fa ndax juróom-ñeenti at ci li weesu ku ne xam na ne bari na ñu ngi daje ci mbaarum Daaru Xuddoos mi lañuy daje tey fii lañ ko defee te bu ñu doon déplacé wu di ko defee ci ay kërit dañ koy defee ci bërëb bii bu ëllëgee ñu def ko ci bërëb bële am bërëb bu fixe nag yàpp naa ne ñëpp yam ci ñëpp yam ci loolu bu ma nee am mooy idéal bi ci lañ jënd fukki pak fukki terrain yàlla dogal miire ci ñeent def fa bâtiment yoo xamante ni bii dana mucc ay bu yeggee te liggéey ba sori na ñu fas na yéene tamit ci diir bu gàtt ñu sanc ko mu nekk suñu makkaan moo xam ne bu ñuy amatee yu mel nii ñuy defee fa lañ koy defee incha allahu rabbi kon loolu muy réalisation boo xam ne ah yaakaar naa lu ko ëpp solo tamit amut. tëriñ Kab Sill ak ñi mu ko àndaleen ñëpp ba yàlla dogal seen mission ci nekk ci bopp liggéey bi. jeex waaye seen mission ci liggéey bi moom mel ni sax day door a tàmbali waaye di ndokkeel ak a sargal sunu doom ju baax ji nga xam ne tey moom lañ dénk liggéey bi di sëriñ maam Thierno di ko ñaanal ci darajay maamam yu baax yi mu yanul liggéey bi sunu ba sunu borom defal ko ci ndam ba fi mu ko fekk mu jële ko fa yóbbu ko fu gën a kawe di soññi nag euh, sunu bopp waaye di soññ ñëpp nag ci taxawaay bi ñu war a am ci liggéey bi ak li koy doxal ak li koy dundal te mooy kenn ku ci nekk rek feddliwaat sa laxasaay ca fa nga féete ak na nga mane mu di góor di jigéen di mag ak ndaw waaye may dellu ci li nga xam ne nag duma tey mukk nag di ko fàttali sama bopp waaye di ko fàttali ñépp ñi nu bokkal liggéey bi muy ndaw ñi ci li nga xam ne moo nekkan fondement askanu Taïba nekk mandarga mi gën a ràññiku ci ñoom bokkit ci li nga xam ne képp ku ñu jiitu ci xeeti askan yi ñu bokkal réew mi la may la tax ñu jiitu ca loola mooy la ca jiitu te loola Seexal Xadiim mi nga xam ne gannaaw bu mag ñi amee taxawaay bu bi ñu aman lu jiitu muy feeñ bokk ci ñi nga xam ne bu lislaam tasaaroo ci réew mi jaare ko ci daara yi muy jàng ak jàngale yàlla mi ngi koy delloo ci ñoom maa ngi wax ay professeur yu aju yu seenum njàng aju ci histoire ci fan yi muy professeur Mbaye Thiam ak professeur Aboubacar Thioub ne leen am na benn widd boo xam ne ci histoire senegaal Sénégal ñi ci bidd ñépp dafa mel ni dañ ko tëb ba gisuguma kenn bind ci te lislaam bu tasaaroo Sénégal dëgg-dëgg loolu moo ko fa tasaare mooy doomi soxna yi nga xam ne bi islaam duggee ci biir Sénégal ci onzième siècle bi mu fi commencé tasaaroo islam dugg na ci Sénégal depuis huitième siècle waaye tasaaroo gi mu ngi tàmbali ci onzième siècle gannaaw révolution des Almoravides waaye ñi ko fi tasaare nag mooy doomi soxna yi ñoo tasaaroo ci diggante njàmbur ak kajoor ak bawal ak saalum samp fa daaray alxuraan ak daaray xam-xam di jàngale lu jiitu sax ay jihaad yooyu Cheikh Omar Fouti ak i Jaxu ak Amadou Seexu di ñëw loolu nag kenn jiitu ci askanu Tayba wii waaye nag bi Seexal Xadiim ñëwee ñoom ñëpp ñu jaayante ànd ak moom mu am nag lu mu fekkan ci ñoom loo xam ne moom laa wax ne fu ba àgg ci wàccuwaay ci biir askan yi moo jiitu ci la ko àgg la ko fa àggale woon te mooy toppante ak warmaalante kër genn gu nekk rek ku ca mag ña nekk ca gannaaw nangu dogalub yàlla ci moom xam ne tànnul boppam pour def mag ca kër ga waaye suru borom moo ko tànn te nangu dogalub yàlla nag dafa bokk ci ponki gëm yàlla ñàkk a nangu dogalub yàlla bokk ci weddi yàlla Cheikh Al nag ñëw am lu mu ci jàngal lu am solo loo xam ne ñun ñëpp buñ ci maasee dana am solo lool te liñ bëgg lépp danañ ko am muy tarixatul adabi rahmatu sharir kal abbi wal ummi wa tawxiirul kabir wax ju gàtt la Cheikh Xadim dafa jàngale ne yoonu tegiin wi nga xam ne bàngaas la ci lislaam waaye bàngaas la ponk la bu mag ci yoonu murit mooy askan wu nekk ka yàlla jiital ca bopp ba mu bàyyi xel ña nekk ca suuf ña cay ay rakkam mu wuuf leen yërëm leen ña cay ay doomit mu yuuf leen yërëm leen seexal xadim ne yërmande joo xam ne day àgg ci nanga xam ne seen way jur waleen jur yërmande jëm leen ëmbal yow mi yàlla teg ci kanam njaboot gi ngay baay bu nekk ak say doom yooyu ña la jiitu woon muy say mag wala ngay mag ju nekk ak say rak Seexal Xadim nee na yërmande jooju nga leen war a ëmbal yiir leen yërëm leen di leen dimbale ak di leen taxawu ba du ñu jooy seen way jur ya ñag waaye mu ne nag yéen ndaw ñi nga xam ne it yéen a nekk ca suuf di rakk ju nekk ak mag walla baa wala doom ju nekk ak baayam bu ndaw boo xam ne moo fa wutu baayam Cheikh al Khadim dafa wax ne ngir ngeen tënku ci teggit yooyu nga xam ne mooy ponk yoonu murit mooy ngeen jàppe seen rakki baay jooju wuutu seen baay tey wala seen mag jooju toog toogaayu seen baay tey comme ni seen baay bi leen jur loolu la Serigne Touba jàggale léegi nag ma wax ne am na ruur mu tàmbalee dugg ci askanu Taïba wax yàgg naa ko wax ay yoon yoon am na ci lu ci tàmbalee feeñ loo xam ne kenn mësu ko cee xam te tàmbale naa feeñ ci ay kër ku yàlla teg ca kanam ngay mag say rakk joxuñu la cër bañ la war a jox ci jiital la wala ku yàlla teg ciw askan ngay mag say doomi mag ma nga wuutu joxuñu la cër bañ la war a jox loolu tàmbali naa feeñ te loolu musiba la musiba la moo xam ne lu yees peq la lu tey ba xamutoon lislaam xamu ko wuute na lool ak njàngaleem Sëriñ Tuubaa mi ñu leen wax ñu bëgg nag silatu rahim ci boppam loolu na bokk ci mission bi jiitu ci mission kër gum fi dégg loolu li alxuraanul karim wax yonent bi sallallahu alayhi jàngale ko wax ko bu mu toog di seetaan rek waaye na mag ña daan def na magu tay ba daan def fu ñu déggee loolu takk dem yendu fa ngir jéem a lijjanti loola bu saafarawut du ñu tay du ñu tayyi du ñu tayyi ba loola lijjanti loolu moo nekkan li nga xam ne moom la magu tay ba jàngale woon ba léegi itam nag ngir ñu mën a sàmm askan wi doxal si la turaim bi dëgg dëgg ndono loolu il faut ñu téye ndax loolu bu fi jógee rek àdduna tukki te nag e mi ngi mi ngi tàmbali di rogaat te dañ ko war a freiner mu taxaw kon loolu mësuma jël kàddu benn yoon te fël ñu ci soo bopp soo ma ci ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal askan wi xam ne silatu rahim la ci jiitu mooy loolu te Seexal Xadiim mi ñuy roy feddili na ko ay yooni yoon ci am njàngaleem ne loolu képp nag mooy ponk bi nga xam ne dëgg dëgg dëgg ci la teggiin yi ab taalibe war a jiital war a làmboo su ko defee la ca nag moo di li ñu wax tey muy projet yi tey am nañ fii ci tuubaa kër sëriñ Taïba muy kërug njabootu Taïba gépp njabootu tey ba nag li ñu leen xamee mooy jàng ak jàngale kon nag su fekkee loolu dafa tombe ak mébét mi gën a rëy ci mi fi seexal xaddim bàyyi wan sëñ bu sa wax ko ne ñetti mébét la fi bàyyi wan yoonu Makka wum yéene wan a dem ak jumaay Tuubaa ji ak daaray alxuraan joo xam ne bu noppee kenn duutu gàddaay di génn réew mi di sàkku ji xam-xam fenn mboolem ku soxla xam-xam boo soxla ci biir réew mi da ko fa fekk loola yàlla dogal Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo njëkk a seqi ab jéego pour matérialiser loolu taxawal université bii muy dox di dox di dox ba agsi nag ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu laxasaayu nag xam le ne moom amul benn bëgg-bëgg wala benn itte lu dul loolu yàlla defal nu tawfiix it mu jël sëtu sëtub Tayba di si Ahmadul Badawi mii loolu di cër bu rëy boo xam ne waa Tayba war nañ koo xam bu baax a baax daara ju toll ni ji nga taxawal ko jël koo xam ne kenn la ci yow sëriñ Ahmadul Badawi mii di tey ba ak Mbakke mu jël daara jooju jox ko kon loolu ci boppam waa Tayba ñoo war a jiitu ci jàppale ko ci loolu nañ ko ciy jàppale nag bokk na ca kër gi nga xam ne mooy kërub Tayba ndax daara ji daara ju mag la yoo xam ne am na ñoo xam ne ci mboolem ñi ànd ak Serigne tubaa démb ak bërki démb ci ay doomi soxna ak ñeneen ñu dul sax ay doomi soxna ci doomi seex yi fenn fu nekk laaj nañ fa Cheikh Mouhamadul Mountakha ay ndaw yu ñu war a tàggat foofu buñ noppee ñu delluwaat sampaat ay daara foofu di ko dundal waaye teewut nag sëriñ bi dafa santaane itam ñi baaxoo a am ay daara itam ñu continuer liggéey bi fa ñu nekk ngir ku fa dem ba jeexal ba war a nag gàddaay génn jàngi fa neen ñu jël la teg la ci loxol sëñ Ahmad Badawi nga mottalee fee kon nag daara yi tey ba jii dafa bokk ci daara ji nga xam ne ji war a eh, ànd nekk ab bangaas ci daara ju mag jee bu ñu fa defee daara yi alxuraan ku fa mokkale ba noppi doo delluwaat fenn dañ lay yóbbu ca biir mu jàmmax bee nga continuer fa sam njàng loolu dafa bokk ci dimbale sëriñ bi ci biir liggéey bi dafa bokk ci dimbali sëriñ bi liggéey ji kon nag daara jooju tey ñu gën cee góorlu bu baax a baax takkaat suñuy laxasaay ba ni ko mbokk mi njëkk a wax waxee bu ñu ko mënta def ab kii donte mbaar sax lañ fay def samp fa daara joo xam ne doomi ba yi nga xam ne dañoo nekk fii ci dëkk bi man fa seeni doom waaye doomi Tayba yi nga xam ne dañoo nekk ci diaspora itam moo xam Italie lañ nekk wala France wala États-Unis wala faneen it man faa dugal seeni doom su ko defee ñeneen ñi nekk ndakaar wala ñu nekk faneen itam mën a am lenn ci seeni doom yi ñu fa dugal e dugal it seen loxo ca daara ja ba muy dox kon loolu ñi ngi ciy soññi suñu bopp li ci soññi ñëpp ñu taxaw ci def loolu naka noonu it li nga xam ne itam mooy kuréel ak bànqaas yi nga xam ne itam ñoom la ñu samp ci région yépp itam et ñu gën ko renforcer et ñañ ko dénk itam bañ a daj bañ a tay bañ a daj ci ñañ fa dekkal te bokkuñu ci ñuy déplacé wu di leen seeti di waxtaan ak ñoom di naxante ak ñoom ba ñu ñëw kooku responsabilité kenn kuñ dénk ab euh, section wala ab cellule bu mën a doon bu ne bul yam ci rek ne yëgal nañ ko ñëpp ku ñëwut yaa ñëw déedéet loolu bul ci yem loolu boo ci yemee day mel ni liñ la dénk xamoo bul dàcc bul tayyi del déplacé wu di dem di waxtaan ak ñoom di leen woo guddi ak bëccëg la nga mën ca lépp nga di ko ca def bul bul tayyi mukk li feeg ñëwuñu rek bul tayyi waaye ku ci ñëw itam nag dafa am lu seexal xadim waxan kat bi mu waxee ne ci lawaasimul asra tariqu muasaratan jaat la waasibu la budda minha li arbaabil iradaati fukki yëpp yim liman ca uqane kenn mënta am li nga bëgg sa diggante ak sa boroom àgg ci yàlla am ngërëmal yàlla am ngërëmal nit yàlla yi lu dul da ko boole ci lépp looy def muy fukki yëf yooyu dafa daje ci yow fukki yëf yooyu nag lii ñu def ca la bokk waruf xatun nee na kenn mënta sottal dara nee na ñu bëgg a sottal dara dañuy dajaloo ànd taxawal lu mel nii muy ab daayira wala ab association wala ak mbootaay gu leen boole ñu ànd nekk benn waaye ne bu ñu àndee nekk benn itam kenn ku nekk nag dangay ngay considérer sa bopp comme koo bokkal ndey ak baay muy membre yi waaye mu ne nag lahum imamun liggéey bañ seq itam bu dee ci askanu Tayba wii ak Silatu Rahim kenn ku nekk da cay tobbil boppam aw sas walla buñ ko ca tobbilee aw sas moo jaayante pour jël sas woowee waaye ne bu jaayantee ba jël sas wa moo xam wuñ ko tobbil la wax walla wam tobbil boppam ma al wafaa yi nee na nag la war ca bay sas wa mu def ko bañ a joxe kàddoom rek ba noppi te bu jëf jotee kenn du ko gis kon cotisation yi ak sas yi nga xam ne dañ koy tobbi wala kenn ku nekk tobbil ko sa bopp Seexal Xadim dafa wax ne dafa bokk ci li nga xam ne nag dëgg-dëgg alxuraan moo ko santaane mu bokk ci li nga xam ne mooy tax ñu walide njulitu nit ki mooy respecté say engagement yi nga jël ci groupe ak mbooloo mu mel nii wal moo foo ne bi ahdim isa ahadu ulaayika lazina sadaxo wa ulaayika umul na la sunu borom wax ca aaxiru aaya lay lay sul kon birru kenn mënu koo am lu dul respecter say engagement ci lu mel ni lii rawatin nag loo xam ne da ko koo seq ak i bokk te sëriñ Maam Balla Syll bi muy tàmbali aaye bi mu tàmbalee rek loolu doy na sëkk ci lu ñu war a xam lii nu yor mooy lan yaa ayyuha llazina amanu sunu borom bi mu waxee nu ragal ko moom bi nga xam ne moo nu bind mi waa waahida wa xalaqa min a zawjaha wa bassa min uma rijalan kasiran wa nisaa lu mu ca teg wa taqu la allazi tasaaluuna bihi wal arhama inna la akaana aleykum raqiba kon yàlla bu fekkee ne cëru boppam bi ñu ko war a jox bi mu nu ko fàttalee ba noppi lu ca teg mooy cër bi ñu war a jox ak bokk mooy niñ ko war a ragale moom sunu borom subhanahu moytandi koo def dara lu wuute ak bëggam ak li mu digal noonu lan war a ragale ak bokk ci moytandikoo def dara lu wuute ak lam nu ca sant ci sàmm ko ak warmaal ko ak dund ko ak di ko dundal te bokk na ci nag lay wuute ak loola mooy lii ñu tàmbale woon di wax mooy rakk yu nekk ak seeni mag te joxuñu leen cër wala ay doom yu nekk ak wayjur woo xam ne moo fa wuutu seen bàyyi ba noppi joxuñu leen ay cër waaye mag ñoo xam ne it dañoo nekk ak seeni rakk wala seeni doom ba noppi te leen waaye bokk na ci itam ñàkk a respecté ay engagement ci lu mel ni li nu jël kon nag góor góorlu bu baax te xam ne yàlla moo nu digal fa mu digalee nu nu warmaal ko eh, ragal ko sàmmoonte ak lu mën sant digganteem ak boroom lam ca teg mooy ñu warmaal ak bokk sàmm lam nu ca digal ci jokk ko ak di ko dund ak di ko dundal tey mooy te ndiku lépp loo xam ne luy dog ak bokk kon nag loolu doy na sëkk ci loo xam ne e, moom lañ doon dolli rek ndax li jiitu woon lépp e, doy na sëkk ay kàddu la yu mëntoon a ñàkk rek